war a dalal waa delloosiwaat lépp ci jàmm ak salaam. moom daal téye na ci bu baax a baax daal ba nee na mercredi dina ko yóbbu conseil des ministres suba incha allah. waaw xaj Moustapha xam nga imaam dafa wax sànq lu am solo foofu laay rebondir tuuti rek gis nga démb jotaay bi ma amee foofu dama fàtt xool benn nit bu waxoon benn kàddu ma xam ne dëgg-dëgg kookoo ko bëgg muy Aliou Sall rakkam nee na ko képp ku la wax da nga pousse élection yi ñu ngi lay dugal ci guut duggun woon ci guut demee ñu ngi doogee dugg ci guut. Mhm. nga wax léegi léegi amnistie bi amnistie bi nag oustaz imam wax na lu am solo waa ji da koo jàpp ba pare xool ñun ñëpp bu ñu daje woon trouver consensus sax. ci dialogue bi ne am na si vraiment dañoo bëggoon nga bàyyi ko du ko baax. du ko baax parce que discours bi mu ko waxee la. gis nga foofu ba muy wax ba seetlul président ba muy wax foofu non lii samay prérogative la. parce que ëllëg man maay rendre compte dëkk bi président laa man maa yore maam politique de la nation danaa ci waxtaan ak samay ministre waxtaan samay député ma wax sax député opposition bi ñu ñëw jàppale ma ci ma ne waa wàllu rek. député opposition moom bu fekkee rek loolu lay am moom parce que il faut que tamit waa wala fay ko bor ñoom moo leen jàppale pour ñu mën a reporter il faut que tamit ñoom ñu jàpp ko amnistie bi jàll man lu mu ci njëkk wax dama ne ba ma déggee mun a amnistie bi mercredi bi programme maam euh, dana ko adapté conseil des ministres suba dama ne kon jàppaleen benn mbir question yaa xam ba Macky Sall doo doogay répondre nooy def sa gars yi waaw nooy def sa gars yi maam wax na lu am solo léegi-léegi eh, dama ne bu doon rek la am amnistie bi amul problème mais lan moo wund amnistie bi ba waa ji jàpp ci di ngan ngari nii mais li ko wund lenn la euh, li xewoon ci réew mi te dafa wax ay date juin mars 2021 ak juin 2023 2024 maanaam 2021 ba 2024 lay doon kay waaw léegi 2023 non fin 2023 parce que juin juin 2023 léegi nag problème yooyu am lan moo xewoon manifestation lan moo sabaloon manifestation yi mooy mbiram lan la Ousmane Sonko mbiram Ousmane Sonko lan moo ko tëgg départ ba chaque jour ma ko gars yi dama ne leen am na benn nit bu woon ne kilifa diine yi am naa lu ma yor damaa bëgg ngeen ñëw ñu waxtaan ma tegal leen ngeen dégg seen bopp su ngeen defee yéen da ngeen wax ak président lii ñu yëkkati ci musiba rek lay yóbbu réew mi tey na leen muy Baye mbay MC Niass waxoon na ko nee na son yii ma déglu lépp lu ñu tëgg lii du dëgg kon ñun réew mi dugal nañ ko ci guut ci lu nekkul dëgg muy mbiram aji saar yëpp dérivé yi nga gis yëpp Moustapha mm. wallaahi mbiram aji saar la léegi nag la ca amoon lan la am na ñu taxawoon ne lii du dëgg ñi ne dëgg la presse bi jël fii justice bi jël fii ku nekk di wax tey fuñ su fu mu jël si cappaandaw gi léegi nag loolu lépp nag li ko waral nga gis ay rey yoo xam ne ñun ñëpp dañ cee teg bët tey wax naa ko ci matinal sama matinal ma su ngeen seetloo tey suñu waxee ne dañuy topp ci justice ñi ko def mais c'est facile parce que amul benn boo demee lire dossier bi nga xam ne Juan Branco defal na ko soo demee nga dugg ci dossier bi amul benn dee bu am lu dul bu ñu yóbbu autopsie bi dañuy wax ne kii balu fetal ndax manifestant dafa tee fii balu fetal Sénégal est-ce que gis nga fi manifestant buy tee bu fetal amul ñu téewoon fetal duggoon ci biir askal bi sax ñooñu dañuy wax ne ay te ñoo ñu ñooñu woon fetal oto yéen duggoon gis nañ ci permanence bu doon jugee te bal bàyyil sax mooy Pape Alé am na ci ay ojo audio ñu génn parce que teg na ci benn séquence bu ndaw di wax na Pape ñun de lii dañu ko sant diw moo ñu ko sant ba Pape Alé Niang yor naa ci yeneen révélation mais nga yaakaar ne ña ko doon jàppale président bañ def lii mais ñooñu lan la leen war am na si bi moom Moustapha bu ñu jàpp kenn. kon kon ñu jàpp ne euh, Ousmane Sonko la bëgg am amnistie. déedéet ñëpp génnandoo ci kaso bi. yow amoo ci gis-gis boobu. déedéet man dama jàpp ne Ousmane Sonko ñoom dañu leen takkal ñoom ñu demoon ci procès sax moo gën dem procès ñu seetal seen bopp man dama gëm ne loolu moo gën ci ñoom xam nga chaque jour lay déglu nga wax benn affaire.

mais ba jàkkale juge bi décision dafa xam ne li ngeen wax ne terrorisme la ci moom amu ci kon ñoom Ousmane Sonko ak booy yi jàpp ñi ñu demoon ci procès moo leen gënal kon président lan lay yàkkamti pour dem ci ne ne ñu dañuy amnistier te ñun bëgg amnistier gis nga famille tutini lu ñu wax ñun nanguwun ko parce que impunité dafa war a dañ te Moustapha gis nga bis bu ñu ko defee mu jàll ëllëg kuñ mën tafal su ñëwee mën naa def lu ko neex demaat ay loi boppam man dama gëm ne ne réew mi fii baax man dama yow dama dama ci teg sax benn mbir dama ne mbiram Ousmane Sonko dama jàpp yàlla daf ñoo bëgg dimbale amul couche bu mu couche yëpp la laal. Mhm. lépp lu ci nekkul dëgg rek yàlla da koo futti damay wax dama dama koy tëkk ci benn ak benn ci benn aay mooy xul jaal xaq wa zaaqal baatil innal baatina kaana zahuuqan dëgg su ñëwee fen day dem te bu bis pencam yàlla fen dootul ñëwaat mbirum Ousmane Sonko fépp fu mu jaar nag laa la wax yàlla nga fay wan lu leer. Mhm. ba mu déparé ci médecine ba ñëw biir gendarmerie duggaat police maanaam jugee ci gendarmerie ñëw ci euh, procureur ba jugee ci di dem nag ci justice recours ak mandat dépôt maanaam ñu dem ba sénégalais yi xam loolu instruction loolu yëpp lan moo ko indi rek mooy mbiram soo Sonko boobu kon sénégalais yi dem ba xam loolu waruñoo xëy benn jour ñu effacé yëfi responsabilité fam mais Moustapha Fulbert Sambou fi fi réew mi tool tamit bakaay waaw dooguma la fi réew mi tamit tamit bakaay réew mi xotteeku na doo bàyyi ñu ñaw affaire bi waaw mais bu ñu ñaw dañ koy ñaw ci dëgg ba dañuy wax ne lii mooy dëgg ñu doogay ñaw boo demee fële euh, Nelson Mandela mais vérité et dëgg ñu doog a ku nekk nag ñu statut responsabilité bi nga am Moustapha dafa am loo xam ne dafa métti askan bi ba weer policiers yi gendarme dafa bari loolu nag dafa jot ñu duut baaraam ña nga xam ne ñoo koy def nit am sañ-sañ man su ma demee ci terrain bi wàcc ak décision bu munta wàcc war naa xam ne mooy comporto ak ñi nga xam ne mooy manifestant yi waruma am sañ-sañ Moustapha lan ma France mais policier benn nit la rey lan yàq France yàqun ko fii ñaata mairie lan fa yàq ñaata lycée lan fa yàq mais président bi lan la doon wax ma ne fekk maam euh, policiers yi dimbala leen ma bu benn bakkan dee. mais fii Sénégal yàqu maam daanaka mën naa man bu ñu waxee yàq sax ma bëriwul mais nga dem ba ci plateau télévision yi nit ñi waxatul sax ci bakkan yi mais dañu wax naan dañ fi yàq lu ñu yàqal Auchan yi lu ñu yàq ci maam euh, euh, bus Dakar Dem Dikk yi kon tey lañ dogee xam ne bakkan moo gën a foor pour ñu amnistier. Moustapha man lu ma gëm mooy amnistie bi dañ ko war a sànni fële. li am solo mooy nañ jéem a réconcilier nañ réconcilier mm-hmm. waxtaan ñu dem ci élection. président bu ñuy fal bu bees nag bu ñëwee moom moo war a def réconciliation dëkk bi man loolu laa gëm mooy ka bees kiy ñëw ki moom moo war a def ki ki ñëw moo ñëwee tamit aussi waxuñu mu nekk ne Ousmane Sonko moo génne woon xale yi am na ci responsabilité ñu mu am na si bi daal Moustapha <coughs> man bu doon sama sago ba am nañ ko teg fële président nag matt na ci